قوة فينا ودينا تسلبت لدار المقام والكل فاق بسجدي كفي قدمك سيد الحاج ماني سيداني مخمود عمر ومحمداني فاتمة بنت له بتواجد محمد جنواي ومن لي waaw kay tabaarakallahu nuyu ni ñëpp ziar ñëpp baalu àq ñëpp yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm di nuyu waa kër gi yëpp tabaarakallahu ah, ñu leen di fàttali sunu bis bi ñu jëm di 30 décembre ñu ngi koy defee fee tàkkusaanu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ci ñaan sunu waajur yi ak way dawlu yëpp ñu ngi tudd Abdou Aziz Seck waaw di leen ko fàttali ku di ko fàttali waa dëkk bi yëpp tabaarakallahu ñu invité ci ñëpp nag ku ci yàlla may jot rek incha allahu taala bëgg nañ waaw yal na yàlla defal ñëpp jàmm ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yal yàlla dolli yàlla defar lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wal muxtaar yaa fi dimbar sëriñ Babacar yaa fi fajal diine ay daanam ca ñëpp la war sëriñ sëriñ Babacar bi ixtadoo te wéral ku roy ci mbay di nga raw yow mal xiyaamati di dugg sër sëriñ Babacar minal basiitin madiidin kaamilin ramalin wawaa filin rajasin abdu bëggul tamaak ci sabar sëriñ Babacar si bu muy kamanja bu muy merza torompe bu gitaar bu fanfanile di Sering Babacar si bu len ko xinal bu len balax balen tamay balen junjong yi balen bango ngeen way ko zar serigne Babacar si ku jirim nga yaram miskin mu ñaw nga teral ko aajo ñoo nga fajal aajoom te do fay ni mu jakar lo khalifa non la jakar lo yéen